الى جهه من بسم الله baaxu fa laa la wax maar day taali terminé waaw ma ne la bokk na ci autoroute yi nga xam ne ñoo gën a seer ci kon seen xam-xam da caamaa lool di ay spécialiste ah waaw ma nan la nguurug Sénégal gi la a nangoo njëg yu seer yi nga xam ne kon maanaam moom la ñuy jëndee wàllu dem géeg dikk gi ci autoroute ABS boobu njëg yi seer na ma Njaay waaw ne xew daal maanaam nag ci autoroute ABS bi la lu doy waar la grave ay nit ñoo xam ne yow dañoo jóge seenug réew ñëw fekk ñu suñu ñu par force Macoumba bi lee jaanama kon di ngeen ko dund laa la wax la ilaha illallah maa la ko wax parce que nag gis nga autoroute à péage bi waaw boo bëggee dégg dëgg ki xam ne nag maanaam kon ñoom ñoo ko ci déy la buur da a war a déglu di wàllum justice Pape Mamadou Faye dafa normalul sax nag ay nag ci boppam kon di jéggi kon autoroute à bi ay nag yow autoroute boo xam ne kon oto yi xam ne ñoom ñoo fay daw day ay cent kilomètres heure daw waaw te autoroute baa nga ne leen dem ba gis nga a bis bi lee daal dinay faat waa kan moo ci topp mar day taali à qui le tour la ilaha illallah parce que nag ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite autorité day dara naa la wax lu mais ci kaw autoroute bi ñu fekk la fa ñetti ngay fay eh way samba eh way yi ay yàlla lañ ba duñ baan may ma la gis nga waaw ay millions yi millions lay wax am bénéfice bis bu la wax bis bu ci autoroute ne te ci kat autoroute bi da nga fay jaar daw embouteillage waaw nga la embouteillage kon ràngati ko la wax libération yi autoroute nga fay waaw président Macky Sall kon ja ay da la ñëw le soleil yéene kaay ne dëgg la président Macky Sall kay daal dinay woo ngir ñu daal di jublu nag ci nasaraan yi nañ lañ leen joxe kon wàllum autoroute ba waaye itam njëg yi nga xam ni kon ni ngeen koy fay tarif yi waaw nañ ma ne la accident yi bari vitesse yi itam seer lool bi daal boo bëggee dégg dëgg waaw ni sabar gu tas autoroute boo xam ne yow lépp fay jaar lépp dee bi nga xam ne nag maanaam kon Papis Mballo bi la daal dina koy fàttu day waaw APS boobee ak nañ lañ ko joxee groupe Eiffage laas accident yi bëri nga xam ne ñoom ñoo am ca autoroute APS day waaw président Macky Sall day ma ngay menacé Gérard Senac yaa jum wala maa jum ma ne loolu am parce que président nee na li ñu mënul nangu kay mooy ay nag di traversé autoroute waa lii luy ne professeur Iba Barry Gassama waaw nee na nguur gi kay léegi moom il est obligé neex na xarit négocier waat maa la ko wax Omar Faye leeral askan wi ci tribune yéen kay ne duñu def dara ñoom nguur gi la yow nguur gi ci boppam kon moo ëppale ci autoroute bi actionnaire majoritaire te yow maanaam jébal bi nga xam ne kon jébal nañ ko tubaab bi autoroute bi lée mii lii mësu koo gis kenn mësu koo gis ci àdduna laa la wax te président Macky Sall keroog ba nga xamante nii gagné na élection yi waaw dane autoroute à péage bi danañu ko audité laa la wax loolu la dikoon kon sénégalais yi ñëpp kontaan waaye ba bii ba démb furaas daal di xireen laa la wax Macky deful dara de Macky kay lam def sax moo yées ndax deuxième tronçon nee ma jam ñaajo si waaw mais da leen koo jébalaat ci loo xam ne yaa neex la amul appel d'offre marché de gré à gré eh def dara du ko ca def laa la wax Macky Sall dana ñëw fekk ab société française muy laal ay intérêt xam nga ne loolu Macky xalaatu ko sax Omar Faye leeral askan wa yemu ca ndaxte nee na effacé moo gën a yées jàngoroy Ebola maarate taali taali maa la ko wax yow autoroute boo xam ne maanaam kon moo gën a seer ci àdduna bi laa la wax te bul fàtte nag ñàkkum kaaraange bi nga xam ne kon moo fa am de insécurité ma ne leen lëndëm nga nag moo raw bàmmeel accident yu Sall daal nee na xoolaat Macky Sall itam daal dinay woote waa tey ci contrat pétrolier gaz ya Thierno Alassane Sall ci l'observateur waaw nee gis nga balaa ñoo xoolaat contrat yooyee ak di waxtaan ak yooyee waaw Macky Sall ci boppam laa lay wax nii na daal di firi def gis ko balaa nga naan ne fa nan la Timis Corporation mi duggee ci biir réew mi loola yëpp nañu ko leeral li leer ba leer la quotidien yéene kaay nee ne nag maanaam kon wàllum émergence développement jëm ca yàlla ginnaaw nag bi ñu fi waxee plan Sénégal émergent day ba léegi ni lée fa ñu war a dooree waaw ba tey foofu day soox de wàllu mbéy meeg ñoomin seen nee nañ nag suuf see yéeg yéeg yéeg yéeg laas xoolal ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey fa Macky Sall nekk de présidence de la République architecte ya waaw waa bureau ba day mer nanu de lool parce que bañ fa nekkee ba léegi ni la day contrat na leen rey de dañuy liggéey noonu rek ay waay samba liggéeykatu santé di wér-gu-yaram day yéene kaay gi allahu akbar tey waa ànd gësëm wér gi yaram kii yéene kaay ma jamal jàngi nee na jàngoroy asma waaw feebar la boo xam ne bu garaaw a garaaw te nag war nañ ciy bàyyi xel bu baax a a a nekk benn million ki maa la ko quinze pneumologue ci quinze millions d' habitants la ilaha illallah ay fuñ jëm professeur Nafissatou Oumar Ndakaaru nee na Sénégal yee fukki docteur ak juróom yu koy faj pneumologue ñoo fi ne te fukk ak ñaar yëpp ñu ngi Ndakaaru njaay jël jóob i way samba Thiès benn docteur dong la yor Ziguinchor benn docteur Ndar Géej benn docteur ñu jeex tàkk maam Adama Gueye ci tribune yéene kaay na dara jëlee fi Macky rek jëlee ko fi rek tourner la base Macky point parce que Macky Sall bëggul débat di boo leen di waxtaanee xam-xam mu mer Macky fa mu far yaakaar na ni ñëpp fa wara far contradiction bëggu ko l'observateur ne waa fi doon tuumal ne Karim Wade ko sant mu indi xaalis ci réew mi day wax na de ril k dak la nee na Karim Wade ci la wàllum xaalis ah Karim du dara Karim yorul suukar madd laa la wax il ne représente ñee biir ne imaam ndaw lan moo tax mu yor vidéo yoo yee ci biir ordinateur imaam Alioune Badara Ndaw ci réew mi quotidien ne maa ngeeg ay vidéo yoo xam ne day ay nit ñuy rey ba pare di leen lekk xale bi ñu rey day libération yéene kaay nee na Serigne Fallou waaw attekat bi dal na ci kaw Souleymane Ndoye mi ñu jàpp tuumaal ko sàccum xale rey ni làq néew recel de cadavre yéene kaay gi ne le président Macky Sall doon inauguré barki dee moo njaay day ca jam ñaa ya waaw gendarmerie ba day rab na foofu sàcc de la ilaha illallah sàcc bee gaaw maa la ko wax kaabalu sénégal ak yu ngand yooyu day la ñu fekk muy sulli ngir jël weñ ba ca nga xam ne maître bi day ci marché noir bi ñu koy jaayee mille francs laa ilaha illallah <laughs> alaaji may laaj dong de may laaj dong yéen moom fit la wala réew mu dëgër miti teg ca président inauguré teg ci fan nga dem dugg ca bureau yi sàcc fukki docteur ak juróom ci fukki million mu lo te ñu ne croissance waaye bu bët setee la ñuy xam ne lépp dëgg la boo ma ne la alaaji